Iliman Ndiaye mu am confiance daanaka ak Sadio Mané ñancoo moo xam ni beneen entraîneur ah, mooy nekk ci ginnaawam ah, di doxal mën naa am kookee daanaka gën a bell ci moom lu baax ginnaaw bu ngeen demee ca Ferefeñe taalibe Cheikh bu mag baa ngoog Khalifa Ababacar Touré mi nga xam ne moo dellusiwaat nag ci vidéo boo xam ne daanaka ginnaaw vidéo bi rajo xewoon fële nga xam ne mooy Farafeñe ci bagage yi nga xam ne moom lay jaay tey mu tollantiwaat bagage yoo xam ne yu yees la ngeen gis ko ci image yooyu ngeen ko gisee ne tissu yi nga xam ne moom lañ yor wala jeesneer yi ne am na ci gaaw leen ngeen sëmbaxlu ci téléphone bi nga xam ne moom la yor ma nga ca Farafeñe ca marché bu ndaw bu ko defee ngeen jënd bagage yoo xam ne yu yomb la yu mujj ñëw nag daanaka promotion la daanaka maye ko la gën a jige numéro numéro baa ngoo ngeen woote rapidement mu livré affaire feeña foofee du ngeen ko réccu ci sama waa ji ci bagage yu mucc ay bi nga xam ne doon na koy jaay li na koy commencé mooy ñancoo Sadio Mané ngeen gis ko démb ci tàggatu boo xam ne gone gi doon na ko def champion bi nga xam ne mooy champion d'Afrique dëj dëpp gi loolee am solo bu baax a baax waaye nag gone gi fi mu toll nii ñuy wax ak yéen daanaka ab entraîneur dana ko sensé ndax Thomas Tuchel nekkoon fële ca euh, Angleterre euh, jaal Chelsea tey it jaar Paris Saint-Germain euh, jaaroon Allemagne googee dana fa dellusiwaat ci tàggatu goo xam ne daanaka dana tàggatu wala boog dana entraîneur Bayern Munich gi nga xam ne Euh, ñancoo Sadio maane fala na ngeen gis ko noonu jekk kap ak kap bu bula ba boo amul chance nag dana ko def kap bu rouge moom mi nga xam ni euh, daanaka remplacé na entraîneur bi nga xam ne moo doon tàggatu nga xam ni euh, moo nekk kii di ñancoo Sadio Mané tey digu ko woon benn yoon Alioune Cissé nag nga xam ne tey ji ñu ngi koy xaar ci programme boo xam ni bu mucc ayib la ndax booy da leen war a cabaxal ñamal booy ñoom Pape Ousmane Sakho ak ki nga xam ne mooy latéralu Teungueth FC bi ñoom ñëpp ñu coppati leen laal leen bu baax a baax ci équipe bi li nga xam ni mooy équipe nationale du Sénégal soxla nañ loolu monsieur le coach loolee te ña ngi la koy bàyyiloo xel bu baax a baax beneen information Iliman Ndiaye ngeen gis ko noonu daanaka tey ji tamit ñu koy xaar ci match boo xam ne bu mucc ayib la fële ca jam ñaaja nga xam ne gone gi war naa dugg si terrain bi tey it onze de départ onze boo ëmb change dana ca bokk ca bokkee tamit dana football ngéwal loole ña ngi koy xaar waaye Cissé ngaar lépp lu mu teg daanaka gars yi bàyyi nañ ko xel bu baax a baax yeneen information ci kanam tuuti revue de presse bi lay doon daanaaje